maaleykum salaam. tonton Diop Fall. tonton ñaanal ci lan laa lay ñaanal. damaa bëgg a dem fële ca Ticimba Dioum daal jaar fële kooku yu réer booy. booy booy bëy wu ndaw nga doon mel ni kuy martaatu bëy wu jigéen. Ah, ma bëgg ànd ak konkande dem tukki. kon daal booy sa mbëb mbëb ji bëgg ànd dem tukki moom nga bëgg àndal. sonn lool. ah da ngaa lool man ma ñaanal la mukk ci àdduna du ma la ñaan. ñaanal ma dem baay. Kunkande laa bëgg a day xar géej gi day xar géej gi Kunkande baqatam bi sax mënu koo xar waxuma laa doxum géej xam lan moo bax ci Kunkande takk tànku góosam yeew ko mawel mamel droite bi nga yeew ko fële ca ginnaaw mbaaba garaas barke bi man xeexam la kaban xam lan la. jël ki sondeel sondeel kaat sondeel nga koy wata jaafam ji di ko toqal rek di ko ci watal mu dimbalu sonni naa nga ni bu ma la dimbalu sonn nga ci dawal mbaam boo xam nga ci loo gën a jekk wut ay xàcc ak i golo di ko garde ñu lay fay moo gën nga yàlla da konkande mais son naa ne gisoon ba weexa maa ngi mel ni jumburu mbaam jumbur ma ne xam booy boo tax rek man naa ma konkande day xar géej kunkande mënta xarab silib sax kunkande mënu koo xarab naan damay xar géej gi damay tifli géej gi ñandal sax oh, boo koy xar may wëree sax wasalaam <laughs>